la la la la la la la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah nee na bokk taalibe yi fi teew yëpp mi ngi leen di nuyu bu baax a baax si turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mu fiy jëmmi Serigne Touba di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ko wér suñu borom dolli kattanam ak wéram ba mottali naalam yëpp ndax yitteem yëpp génnul liggéeyal Serigne Touba mu yëkkati kàddu nuyoo ak cant ak ngërëm di ko jëmee si jëwriñam ji ki fiy jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall di sëriñ am di moom sëriñ Modou Mbenda te tuddee ko Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall di teg bi nag si jawriñam yii ko fi teewal muy Cheikh Mouhamadou Moustapha mi fi teewal sëriñ Fallu teewal fi sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng teewal ko fi moomit basi man mii di sëñ Dame ak mboolem rakk yi sëñ Moussa yi teew yëpp kon sëriñ Moussa sëriñ bi mi ngi lay yónni ak cant ak i ngërëm jëme ko ci sëriñ Amdi ci liggéey bii nga xam ni santoon na ko ko te mu gatandoo ko ci mbégte bànneex bu rëy ak pëste bu kawe kawe nee na mbirum sëñ Tuubaa moom lépp day xar baax ndax boo seetloo njabootug Cheikh ku ko fi toogal rek da ngay yéem pastéefam ba booy xalaat sax da ngay jàpp ni kenn mënta ñëwaat ba mel ni moom loolu na pàgg téefam la moom moo ko def ci ak njabootam ba ku gën a mujj rek gën a bëgg sëñ Touba ci ab taxawaay ëpp taxawaay ëpp pastéef ak yite kon lii ñu doon def tey rawatina si garab gii nu ko tàmbalee muy garabu xay tawfeex ju rëy da seen ne ndax Touba ñëpp xam nañ ni Serigne Touba ko tuddee garab ga sa àjjana wax ne Touba arasa allahu taala min kulli makrohin wa ma kon nag bu yàlla defee Cheikh Mouhamadou Mountakha ni ko kilifaam yu njëkk ya daa defee ndax ku ngeen ne si jamono Cheikh Abdou Lahad mas na fee santaane njëmbat mu mag mu rëy loola yàgg na 77 la kon ëpp na ñeen fukki at kon bu ñu demee ba sëriñ bi corniche bii ñëpp xam nañ ni mu taxawee si dëkk bi mu am si yéene ju rëy ngir bëgg yombal nit ñi dem beeg dikk bi bu yàlla defee si loolu nag mu gàttandoo ko lii tàmbalee ko lii si garabi xëy yi garabu xëy nag Serigne Touba toogoon na sa njaareem si mujj gi di wax ne yàggadi wu fi de ndax lii firnde ji Abdou Samad Sylla mii maa tuddoon baayam tudd ko garabu xay gi itam maa ko jëmbatoon si sama loxo te maa ngi toog si kër gi këram kon nag bu yàlla defaatee ñu indi garabu xay tàmbalee ko liggéey bi mu war a wër korniis bi waaye ab tàmb rek la nag waaye kenn xamut fu muy yem kon loolu taw tawféex ju rëy la ñu tàmbalee ko si weer wii nag nga xam ne weer wu Sëñ Tuubaa fonkoon la mu weeru muharram bari na loo xam ne si la amee si la xewee bari na loo xam ne si la ko sëriñ Touba defee si dëkk bii kon nag loolu bu ko sëriñ bi tànnaatee tàmbali ko si tawfeex rek la ak bëgg a dimbali taalibe rek ndax nit ku ko bëgg a dimbali da nga koy liggéeyloo rawatina yéen. ndax nee na suñ lépp liggéeyal sëñ Tuubaa la moo tax xam na ne sëriñ bi bu nu doon yërëm dana nu yërëm ndax xam na ne sonn nañ noppalu wunu guddeeg bëccëg waxtu wu ne ñi ngi dàkk ndigalu tubaa Tuubaa rawatina nag bu nu digalee amuñu dara si suñu bopp lépp jox nañ ko sëñ Tuubaa kon nee mi ngi ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa tawfeex ju rëy jooji nu yal na nun tabbalaale si biir nun ñëpp nag ñun tabb si biir nee na sëriñ Moussa da koo gërëm te yàlla def itam fekk sëñ sëñ sëñ sëñ Basiiru bëggoon a jottali ngërëm yi ndax bi sëriñ bi yëkkatee liggéey bi da koo jox ndigal waaw jaarale ko ci mu woo ko wax ko ko boole koog man mii wa si ne ko li mu woon si moom defe na ko nu kawe sunu njortu sax nee na kon sëriñ bi nee na mi ngi koy jotil ak cant nee na cantuk sëriñ bi ndax sëriñ bee ko denk ab liggéey mu siy def yitte ak pasteef akub taxawaay rawatina lii ma ko si defal jërëjëf Mbacke kon sëñ Moussa seriñ bi ne mi ngi lay sant bu baax mi ngi lay sant bu baax Cheikh Amadou Bachir sëriñ bi nee na li sëriñ bi mujjee lay tontu ba noppi nee na gor soo xam ne bu noppaloo du sonnati ba faw nee na soosee gor daal Mbàkke lu mu sonnal yàlla duyut te coonob ñi ànd ak sëñ Tubaa tem nangul leen seen ruu rek la àndal ruugi la àndal lu mu metti lu mu tartar bu ruug a dañee rek coono ba dañ te ba faw nag kon nag Cheikh Amadou Basir ah, nee na say waxi ba Basiru daa saf xorom si murit yi ah, day sunu bànneex ah, nee na su doon lu ñuy takkamtiku du doy si nun nee na fi nga jaaroon lay jaar moom itam ndax dañ ko yónni da nga koo si sëriñ Falilou bëgg mu jaar si ay kilifaam yëpp. mu jaar si ay kilifaam yëpp. kasa jëkk nag mooy sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng moom Cheikh Modou Moustapha mu mu teg nuyoo bi si loxo loxoy jëwriñu Cheikh Rafal ji moom itamit mu tegal na ko si jëwriñu Serigne Touba ji wala nu tegal na ko si sa loxo yow Cheikh Basir nga tegal ko ko si loxoy jëwriñu Serigne Touba ji ne ko alhamdulilahi rabil alamin lanu waxoon nun Baye Fall yëpp boobu baat lanu waxandoo nun Baye Fall yi sant nañ sunu borom si liñ fekke lu bari si tàmbalib Touba ndax lépp Touba rek taarix la te bari na si yu nu fekke benn si benn boobu Serigne Touba si ñëpp laat Mbakke si ama salsa sin woote woon na njëmbat lu yaatu Cheikh Amadou Bassir ko moo tax man koo nettali lenn Touba lu ne taarix la mbeddi Touba taarix la ndoxum Touba taarix la lampi Touba taarix la yooni Touba yi taarix la marché Touba bi wala marché Touba bi Touba yi ay taarix nu mbedd mi nga wax. mbedd mii taarix la. ma ko jiitu. taarix la. mi topp si mii. lépp Tuubaa daal taarix la. yu si bari nag. sunu borom baaxe nanu ban fekke ko. loolu alhamdulilah rabbil alamin ndax ku fekkee tàmbali bii. ba nga xam ne ba keroon nuy wal bufte bi. loolu mbakke du dañ. fekke naa woon naa ko ji. ndam lay doon. si am murit nga xam ne soo ko seetee dañ naan tey jii moom ku yaakaar ku sa yaakaar nekk si sëñ Touba ku ne war ngaa teew Touba wala nu teewal la Touba ndax sa teewaay bi yow si Amadou Bassir yaa fi taxawal jëwriñu sëriñ Touba ji waaye yaa fi taxawal nag jëwriñu Cheikh Rafal ji ndax nun ñu ko fi taxawal yaanu taxawal kon si Amadou Bassir li nga wax si Touba bari na waaye lu si ne la say njëriñ noo ngi ñaan sunu borom yàlla na si boole Cheikh Modou Bachir nu ànd koog moom loolu nga bëgg nu tabal la si muy muy tawféex gi yow nee na yow tawféex nga loolu li ñuy ñaan loolu ngay ñaan Cheikh Modou Bachir moom nga far yow <laughs> waaw jërëjëf Fall ah, waaw jërëjëf sëñ Jili waaw mi ngi taxaw buñ ne kuy waar wi duñ ne ko waar wi tudde ko ab taxawaam rek tax ak nun ñi dama la dama la biir dama laabiirul dama waaw sëriñ bi nee na dama laabiirul waaw nekkoon sëñ bi du waaw waaw danaan kon teema ko waxal ndax xare bu tol nii ka nga jiital wala ña nga sa jiital loo say def lu ne gannaaw ak doye tax nga teg leen fa bu dee waxa wax loo leen bu dee jëfa jëf loo leen moo tax sëriñ bi nee na warutoon a wax warutoon a jëf waaye yërmande ji ñu am si sëñ Moussa bëggoon noppal si lu ne moo nee na moom itam lu ne toll am si nun kon si Amadou Basir nun murid yi bor bi ñu ameel sëñ Basiru nee na waxoon na ko waxoon na ko sëñ barki dem nee na ku dajeeg yow war naa jëflanteeg yow war a waxanteeg yow ndax li nga ko ameel noo ngi ñaan sunu borom si daraje liggéey bii nu tàmbali saw fan yàlla na gën a gudd sag wér yàlla na gën a dolliku yàgg képp koo bokkal pas-pas waaw bokk nee na googu ñaan sax moo gën a matale sëriñ Abdoulaye Ka nee na nun murid yi nee na yow tamit lii la jëwriñ ji denk muy jëwriñ sëñ Tuubaa ji na nga ko yóbbu fa ko gënal te na ko gënal nee na suñu sedd na si yow nee na nga li ma seere si Cheikh Amadou Bassir léegi taxawaay biñ la doon defloo mu bàyyi ko si Serigne tubaa lépp nga matal waaw waaw <laughs> <laughs> mu des nag borom laxasaay yi taxaw te tàmbali li nu tàmbali yàlla na xàgg ak te nu jëriñoo ko waaw te te jëriñu ah, nan ko jëriñoo te jëriñu si waaw waaw nee na sëriñ bi daa bëggoon wax ko ne ko rek li mu nu yónni dana àgg fa mu jëm bu lool loolu dong lañ bëgg fa Falilou Fall nee na mi ngi jottale ay kàddoom di ko jaarale ci sa jëmm ji Cheikh Moustapha mu dem ci Cheikh mi nga xam ni. mu ñëw ci Cheikh Mouhamadou mi nga xam ni. mooy jëwriñu Serigne Touba ji fi teew. mooy jëwriñu Serigne Touba ji fi teew. yor kàddoom. yor kàddoom. yor kàddu yor kaddu yoonu murid yëpp. te murid yëpp bëgg ci lool. te mu yëpp bëgg ci lool. nee di ñaan nag ci darajey maamam ja. liggéey bii ko Serigne Touba di liggéeyloo. liggéey bii ko Serigne Touba di liggéeyloo. mu am ci ndam. nee mu am ci ay ndam. yàgg ko def lool. Cheikh Bassirou nga yàgg koo def lool. ni ko Serigne bi bëgg nag liina nag moom. nee lii nag moom. misaalum àjjana ma. misaalum àjjana ma. la Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké waat dëkk bi dëkk bi. turu garab la gu nekk ci garab la gu nekk ci àjjana billaahi loolu la wax ci ñëwagoo. muy muy muy Touba. muy Touba. kon bu sëriñ Mountakha jëmbatee garab garab yi. di ko di ko yeesalaat. di ko yeesalaat. ngir jëmmi tur woowee. ngir jëmmi tur woowee. nee ñun ñëpp suñuy xel dal na. suñu dolli ko na baax a baax. nee ñi ngi ñaan lim ci bëgg moom. sëriñ Tuubaa defal ko ko waaye li waaye nag moom it li mu bëgg ci murid ko ko ci Seex Ibra Faal defal. yëpp. nee ñu jékku ndigalam yëpp nag. yàgg ko liggéeyal bu baax. yàgg ko liggéeyal bu baax. te ànd ak ngërëmam. te ndax loolu rek moom la ñuy wut. nee bu nu amee ngërëm. am nañ li ñu taxoon a jug. kon yàlla na nu am ngërëmul Serigne Touba. te ànd ko Seex Ibra Faal. Serigne Abdou Lahad Ka. Ah, Serigne Fall nee na mi ngi lay nuyu. ci turu Seex Mamadou Bassirou jëwriñam bi ak jëwriñam ji Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di la ñaanal yàlla defal la jàmm di la ñaanal Abdou Lahad sa borom defal la ak yokk defal ndam ci liggéey bi nooyal xolam bi def yëpp nooyal xolam ba lii Sëriñ liggéey loo ci yow ñu nangul la ko te nga ànd ko ñun te mu yàgg lool nee na suñ xol seet na bu baax a baax sëñ Basiru sëñ Fall nee mi ngi ñaan lin amul lu dul moom nga nangul ñu ko ca téyel ñu ko muy ak taalibe ak taalibe rek ka fi nekk leneen lu lu fi nekk day mel ni àdduna rek la loolu fi leen koy bàyyi duñ taalibe gi moom fu ñu jëm ñu nag moomay ànd duñ ko bàyyi ginnaaw mukk ca lu am ci lu baax tey baa am ko ëllëg nee ak taalibe lañ ko mën a jëlee kon dimbali jëfe lool. liggéey bi seet na xooli murid yëpp. liggéey bi nag seet na xooli murid yëpp. ni ñu ko tàmbalee tey jii. ni ñu ko tàmbalee tey jii. bisimilahi rahmaani rahim. bisimilahi rahmaani rahim. yàlla na àgg ci alhamdulilahi rabbil aalamiina. te àgg foo ko bëggee nag. yàgg sa jëwriñ yëpp. ci barkeb sëñ Tuubaa Seeru Faal. ma Mustafaa xam naa wax ji matoon na waaye sëñ daam da koy wax. ñii ñu ko boole doon seen taxawaay. ci lépp day dem nag ndax bu ñu ko jëfoon duñ leen ko wax am nañ fut am nañ am na fut la li ngeen def rek tax sëñ daam leen seere waaw nee dem bi ñu fi ñëwee. danoo fekk ngeen tàmbalee gas bi. danoo fekk ngeen tàmbalee gas bi. te bëgguñoo taxawal liggéey bi. liggéey bi. waaye gis nañ leen nag. waaye nag gis nañ leen. gis taxawaay yëpp. gis seen taxawaay yëpp. Pastef yi Pastef yi. ak ni ngeen bëggale Serigne Touba bëggam gi. ak ni ngeen bëggale Serigne gi. waaye yéen tam. waaye li seenu bëgg. lépp li leen ko Serigne Touba defal. ci barkeb Serigne Touba mi ngeen liggéeyloo. ngeen yokk nag bu baax. te wér bu baax. te man bu baax. te mucc nag. fu ngeen bëgg àgg rek fu ngeen bëgg àgg yàlla leen fa Seex Ibra Faal yeggale yéen ak mboolem ñi ko bokkal barkeb sëñ Basiru Mbàkke mi taxaw barkeb Seex Ibrahima Faal sëñ ñaanal la ilaha la